Abonnez-vous sur Khamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kashifil lghumma wa shafii lumma sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aima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 doy walis bepp nuyo ta ben nuyo man ta doy walis ko ñu tibbe ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa di del wat ci kartanal yalla di sof ak yow li ma sosoon ak yow te dëxalaloon ko ci walu nit ku war a bagasam wala ñi war ko takal ay bagasam mu war a laxas bàyyeekoo ci kër gi ñuy tuddee àdduna jëm ci geneen kër gu ñuy tuddee barsak barsak moom ku fa xas dem yaa fay beroo ak sa sàq mi nga liggéeyoon file ndax yàlla ñaari ñetti aalam muy ñetti monde la sàkkal nit ki monde bu njëkk bi mooy àdduna kër ak liggéey la ku fi liggéeyut perte nga fële muy barsaq kër ak nigandikuwaay la mooy xaar moom escale la ñu ngi mel ni kuy tukki avion war a def transit rek fa la jëm nag mu yàlla xiraa muy foofa moom kër ak fayeeku la su ko defee kon nag fii mooy kër ak liggéey gi ba sax mooy kër ak nigandikuwaay gi xaarante gi ba ñëpp ñi newoon ci àdduna bi ñu embarqué leen ba ñëw foofu ku ñëw rek ngay xaar ñi fi nekkoon ñëpp jeexee nag ñi wal bufta ba ñëpp dee ñu togaat lu mat ñeen fukki at yalla xam ci suñu hadiwa mba hatu ala qiraya fofu mom digënté ñeen fukki at yoy ñeppay nekk ci jamm même ba ci xéeféer yi bu gënam bammel du am ni ñay nelaw rek bu maté nak ñu doora wal wal bufta bi nak ñepp wara a seen carnet yi wara jëm nak ci péncam yalla ma motax fofu nelaw yoy neex ba tax ku ñu hé sax ñu ne wal nañ bufta bi hala xiraa gu magga taxawna ñepp ku ne man min marqadina hadha ana kan mo ñu yeewaay ci place bi ñu doon nelawee ak wala suñu nelaw yu neex yi su ko défé kon nak ni mëna ko mëna misalé misaalee daal yow kat bi ya départé fi Sénégal moy sa aduna su ko défé nga tak say valise jëm nga aéroport wara a pour yu sëpp la nga tek say baram nga wara jaar yëpp jaar nga fa dem ci douane bi contrôler la li nga yore nga dem nag ci sal bi ñi embarqué nit ñi toog di xaar avion bi ñew dañu xass duggal la ci jappé ko né yaangi ngi dugg ci sa bammel nak jëm tax bi am bi ko rek départ nga fi la taxaju deug deug deug dal moy sin wa yaangi def escale dubai. bu ngeen fofu nak dubai moy bar sax yeen ñi jëlee woon Guinée Bissau ak ñii Sénégal ak ñi Gambie ñi Afrique du Sud yépp dañu dajé fofa di xaar nak xaarante ba ñëpp dajé ñi doora jël benen avion nak dugal leen ci ngeen jëm sin sin nak mom mooy yàlla xiraa ñëpp dugg nañ door nak kenn tardé fofu nak non la mbir mi mel kon fi ku dé da ngay dem barsaq di xaar bu ñëpp dé nak ñi dooré embarqué ñëpp ndor ñi jëm barsaq kenn ku ci nekk nak bagage bi nga liggéeyoon ya koy gàddul sa bop kom yow mi nekk ci aéroport bi yore sa passeport bop lepp ci yow lañ ko enregistrer li nga def lepp buñ ko tege ci machine bi kañ nga juddok fo kuisa kuy sa baay ak kuy sa yaay ak lepp lo fi def mi ngi feñ non tamit lay mel ëllëg ca halla xiraaga lepp yalla ñu koy wanal par ben ben su ko defé kon nak fofa nak muy barsaq dafa am lu ñuy waajalee pour man fa dem liñ koy waajalee fi moy jaamu yalla la fay yobbu nak moy dee fek dee go do fa dem dee nak mom la yalla ñëk bind ci dundu doon tele aaya ji moom tegtaliwul ne sax moom la njëkk a bind ci dee waaye xaal bi ak njàngaleem yonent bee ko xam xamle waaye boo jàngee ci aaya bi nekk ci sootul mulki moom dafa ne xalaqal mawta wal xayaata rek njëkk jim njëkk a tudd dee nag tekkiwut ne dee lay njëkk bind foofa aaya ji xamlewul loolu ndax fekkoon dafa ne xalaqal mawta suma la xayaata wala mu ne xalaqal mawta fa la xayaata waaye wal xayaata la wax istiraaki rek la mooy ñoom ñaar ñëpp xam nañ waaye boo gisee mu njëkk tudd dee ñaar buñ taxawee ci sa kanam muy aham ak muhim mooy li ëpp li xam importance ak li ko ëpp importance buñ taxawee li ëpp importance ngay njëkk tudd ci lii nga xam ne dafa am importance rek waaye li ko ëpp importance fuuf moo tax yàlla tudd dee door a tudd dund gi donte aaya bi moom du tegtale ne ñi bii ci jiitoo bala ki jiitu waaye njàngaleem yonent bi mooy jiitle ne dee moo jiitu nit ki ndax nit ki rek. ci la jiitu woon mujj gi xam ñëw gaar si muy mujjaat tamit ci ak ñàkk rek bu ca bàyyeekoo nag door dem ci xam ngoo xam ne dootul jeexati mukk dee moomu nag yàlla ko bind buñ ko ragal nañu ragal yàlla mi ko bind rek te bu ñu ragalee yàlla mi ko bind moom dee mu raglu moom sax mën nañoo ragal xaadimu rasul si ahmad bamba góor ak yàlla gu tedd ga dafa daan wax ne waxay suma taxaf ilahakal ahad yaxaf ka min xawfika hoo kullul ahad mu ne saa yoo ragalee yàlla mu raglu mii lu raglooti ragal ñi déggee ci ne saa yoo ñemee yàlla mu raglu mii lu raglooti ñeme la kon bu ñu ragalee yàlla gaynde yi ragal ñu jaan yi ragal ñu jiit yi ragal ñu bukki yi ragal ñu wuyu yi ragal ñu dee sax dafay mujj ragal ñu kon nag bu ñu ragalati dee nañ ragal yàlla mi bind dee rek kese soo ragalee yàlla moom lu raglooti nga mucc jëm xam na ñoo xam ne seen ak dee duñ ko yëg dafay mel ni rek nelawi gi mentu ci ñoom yal nañu ko yàlla boole defal yàlla mën na ko xam na ko sañ na ko yàlla nañu ko yàlla boole defal waaye dee daal lépp lu xam bakkan muccut ci lépp lu xamul bakkan tamit muccut ci lu dëkkee ci biir suuf muccut ci lu dëkkee ci kaw suuf muccut ci lu dëkkee ci kaw asamaan mu ci ñetti kullu la yàlla indi ci alquran yu bàyyiwut lenn yàlla dafa njëkkoon a wax ne kullu nafsin zaiqatul mawti bépp bakkan bu mos dund dana mos dee te yéen nit ñi mos ngeen dund yéen ak jinne ak malaaka yeeg ñanaaw yeeg yent yi kon faw ngeen dee ba yàlla waxee loola nag li nekk ci kaw suuf di dund mi ngi ci kaw suuf waaye amut bakkan bu muy dundee lu mel ni jamaat yi muy demee ni weñ yeeg xeer yeeg montagne yi ak lu mel ni moom ba ci suuf yi ñoom ñu bàkku ne yàlla lu am bakkan la wax te ñun amuñu bakkan yàlla ne seen kullu ga ngi ñëw du ngeen mucc ci dee kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram ne lépp lu nekk ci kaw suuf ak lu mu fi man di nekkee mënta mucc ci dee dana fi bàyyeekoo de doj yi sax xéeféeri laaj nañ ko yonantu bi yàlla jàngal ko ko wa yasalunaka anil jibaali qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan laa tara fiha iwajan wala amtan mu ne ko doj yëpp yàlla dana ko tracé ko mu maase montagne rës lépp daanu maasaloo bi yàlla waxee kullu man alayha li dëkkee kaw asamaan commencé bàkku ne ah damir jooju di alayha ci suuf la dellu de te ñun newuñ ci suuf kon ñu nekk ci asamaan mbaa ñu nekk ci diggante asamaan ak suuf bokkuñ ci yàlla indi leen kullu goo xam ne nag bawut dara kullu maanaam tanwinu taamim la ne kullu shay'in haalikun ilaa wujuhu wallaay xamul lenn lenn lu mën a don ak lu mën di donee ci biir suuf ci kaw suuf diggante suuf ak asamaan diganti mu nekk ci kaw asaman mbaa mu nekk ci kaw kaw ak lum fa dana de dana hal ko ala yalla ji rek mo fi dess ba yalla waxee li nak kenn mënta muccuti ñi am bakkan nekkoon dal dee ngi nañ daw ndax nit ñaare lepp lu magal ñaara ko ci musal ben mu namm tankam nam aw xel rek mën na mucc wala mu dem seet fo am sécurité fo xam ne amul kenn ku ko fa mën fekk ku fa amul yalla ne ñaar yi du len musal ci de bu ngeen daw da ngeen dajeeg moom qul inna al mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum su ngeen ni daw di daw de de mom far far di dajeeg yeen boy daw nak loy dajeeg mom nu gëna a gëna gaaw a ak mom kon lo ca man laj ko sulayman ak wayam ja benn way dafa mësa tok andon ci délégation yonentu yalla sulayman bi dend sulaiman malakal mawti ñew di siyaara ci yonent yàlla sulayman ba mu ñewé jaal mi ngi solo nak mi nga xamé melaw nit ndax walaw ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alayhi ma yalbasuna mu xool jël bitam ye ya rek fixé ko ben jëm waje tit ne sulayman sa waji ni may xullee bëtam yii ñemewuma ko dama bëgg comme yalla tagatal na la ngalaw lo xamné xeyam dox wër la gontam dox wër la wa li Souleymane riixa xuduwuha shahrun wa rawaaha shahrun maa ngi nii senegal sa ngelaw li laa bëgg mu yóbbu ma siin léegi ndax ma mukki ci bëti waaj yi Souleymane hebal ngelaw la waaja dugg ca kafa xippi rek mu yóbbu ko siin waaja ba mu ne wàcce siin ca wàcc rek dajeeg malakal mawti rek mu xëcc rooga mu dee Souleymane ne ko lan moo taxoon nga jël sa bit yi fixé ko ko rek ba mu tiit naan day daw mu ne yàllaa ba wax ne naa ko indil ba kanam waa jile midi te xam nga ne fu ma nii huit heures demi jot na te dafa ma wax ne bu ma ko koy indil na ko fekk si si suufu siin ba man ma jaaxle ana lan moo ko war a mën a yóbbu fii balaa midi siin loolu jaaxal ma lool oto amul mënu ko avion amul mënu ko gëléem yee fi xam ak fas yeeg baax lay yi kenn mënu ko ci ci gaawaay moo tax bi xelam dajee sa ngelaw li ma xam ne sa ngelaw li rek a man loola ci laa gën a yéem kartanal yàlla moo tax daal waa ji dafa ne cëpp rek waa ji na roccet bakkan ba yóbbul ko yàlla kon kooka da doon daw dee waaye far dajeeg dee bu xamoon dafa ne man du ma génn senegal gi de fii laay toog de mun naa am li ko noon ah, Bala bala dede nanen dana ñewat ndax yalla mom kasna dogal ba pare tan lu kas dogal kenn mënutut ko didati kana mu dugal ko ci llahu ma yashaawu wa yuthabbit wa indahu umul kitab kon kooko dafa don daw mu ci ñu ne xana kon nak bi ci dess moy ne suñu duggé fu am sécurité duggu ci melni ben container tejj ko wala ñi tabax ay étage wutal ko lu ëpp fanweri caabi te tëjëkk tijji tëjëkk tijji ba ne ci ne bo xamene tànk musut faa duggati dootu fa duggati xanaa kon danañ mucc yàlla ne néeg ya nekk asamaan su ngeen ca yéegoon sax dee fekk leen ca ay ayna ma takoonu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fii burujin mushayyada kon nag loo jamanati kon nag dee kenn mënu cee mucc nit ku ne lam ragal ñaar ko ci daan musal naam mu tànkam ci aw xel wala mu dugg fu am sécurité ñaari yi manta mënta musal kenn ci dee dee yàllaa ko bind bëgg mu bëri yàlla lu mu bëgg mu bëri da koy wutal sabab lu sababam bëri mu bëri kenn mënu ci dara gisoo yàlla bi mu bëggee dugub bëri dafa dafa dafa def kartanam ba jiwu bi ñuy bi bi ñuy jiyee dugub di bëri bu namee gerte bari dafay baaxal jiwu wa gerte bëri bu bëggee mboq ma bëri dafay baaxal mboq ma taw boole kook gàncax ga mu baax yàlla tamit lu mu bëgg mu bëri rek dafa koy bëri dafay dafa koy dafay dafay bëri sabab ya sabab mooy bëri kon nag yàlla moomu bi mu bëggee xalal bëri dafa bëri sabab yuñ mën a wutee xalal moo tax nga mën a taxaw ne diw dee milliardaire la fu mu ko jëlee ñu ne commerçant la ñu ne diw dee milliardaire la fu mu ko jëlee ñu ne da koo donn diw dee milliardaire la fu mu ko jëlee ala kulli haal ñu ne moom de baykat la ñu ne diw de milliardaire la lu fum ko jëlee ñu ne entreprise la yore dafa yore ay entreprise ñu ne diw de milliardaire la ñu ne fu mu ko jëlee ah yàlla bu ñu wax na ci politique bi la ko jëlee de boobu de moom baaxut de su ko defee kon nag yàlla bëgg milliard bëri moo tax mu wutal sabab yiy bëri milliard naka noonu tamit yàlla bi mu bëggee ñàkk bëri dafa bëril sabab yuy bëril ñàkk. léegi-léeg nga dégg ñu ne diw de ñàkk na lu tax ñu ne xalal ja lakk diw de xamatul dara lu tax dañ koo sàcc diw de xalalam ja yëpp ñàkk na ko lu tax ñu ne fa feebaroon fajoo ko ñu ne diw de xalaa ko leer xalam ji ma xamoon yëpp ñàkk na ko ñu ne dañ koo nax mbaa dañ koo tiriyan kon yàlla bëgg ñàkk bëri moo tax mu wutal sabab yuy bëril ñàkk bi mu bëggee xam-xam bari moo taxal mu wutal sabab yu bari xam bi mu bëggee tamit dee bëri dafa ko bari sabab yu bari dee moo waral léeg-léeg ñu ne diw di na dee ah moom teel na di lu ko rey ñu ne dafa feebar ci nan ñu ne bobbaay metti feebar lu bari la parce que dañu bobbaay metti ñu ne biir ba la ñu ne tànk ya la ñu ne bët ya la ñu ne nopp ya la ñi ne ñi ne ñi la yooyu yëpp nit mën na caa ci feebar yoo xam dañuy doxee dee ñu ne diw dee na ah xanaa moom feebu ñu jaana ko mat ñu ne diw dee dee na ñu ne lu ko rey ñu ne dañ koo njabar wala ñu ne dañ koo kort wala ñu ne diw dee dee na lu ko jot tabaarakallaahu ah, ñu ne dafa accidenté oto dem moo dal ci kawam wala tabax baa daanu ci kawam yàlla bëgg dee bari rek moo waral mu jël ko sabab yu bari moo tax shaacir ba ne kataballaahu almawta ala kulli kainin hayyin walil mawti asbaabun shatta kulluna yaarifuha man lam yamut bisayfi maata bi xayrihi tanawwaat al asbaabu wal mawtu waahidu mu ne yàlla dogal dee ci lépp luy dund rek dee bëri ay sabab yu fasantikoo yu bëri ñun xam nañ ko ñun ñëpp ko xam ku deewut ci jaas yi da nga dee ci lu duhul jaas yi façon yi dee a waaye dee moom bëri benn rek la façon yaa bëri dee waaye moom benn rek la li moom nag lépp a ko ragal dee ñëpp ko ragal ragal giñ ko ragal a tax tur ya bëri da ngay dégg ñu ne ana diw ñu ne moom di réer na yàlla xam kañ lay feeñati ñu ne ba ci kanam ñu ne ana diw ñu ne sànku na ñu ne diw ñu ne wàcc na liggéey ñu ne ana diw ñu ne noppalu na ñu ne ana diw ñu ne moom de fàddu na ñu ne ana diw ñu ne mom dee dee na yëpp dee na bëgg wax rek waye baatab dee ha ñang ba kenn ci ay hegg nga koy liyaaralee sanku nak faddu nak noppalu nak euh, riir na ak yu kenn xamut waye fekk na yoy yëpp mi ngi daano ci baatab dee rek lépp ko ragal motax ñëpp wutal ko ay ay ay ay ay ay mbubb yuñ koy solal ba ci ay hegg bañ ci bañ yegg ci mom kon ngo kenn mënu ñu ci bari nak dañuy ci ah kay dee dee mën naa amee ci feebar mais mën naa amee ci wér léegi léeg nit ki feebar ngay yëkkatee ka tëral di xoolal ka ñuy samp ay prévision fekk ka ko koy sampal di médecin ba ak ka yore malaat ba ñoom ñaar a koy njëkk dee ñoom ñaar ñëpp dee nañ bàyyi fi malaat bi loolu lépp ku ne gis na ko kon nag dee ak feebar jotewuñ dara foogee nañ ko fa rek léegi-léegi nit dee sax fekk dara jotu ko kon nag yéen ñi feebar rafet leen njortu te xam ne dee ak feebar joteewuñ dara nit wér na peleg dara jotu ko mu dee nit tamit feebar na jaare ca dee yàlla moo ko doxalee noona lu ko waral ñëpp ko doon xëccoo yàlla far séddale ko ñëpp rek dee ba mu wàccee bees xukamaaw yi ne nañ ñu ko taxoon a jóg mooy xale yi xale yoo xam ne dañoo ndaw xamaguñ luy bànneex ab dudd ñoo daan dee ba dee ñëwee fekk leen ñuy fo ñu ne leen lii de dee la dañoo bëgg ngeen dem nottalu ji ñu ne ñun sonnaguñ nañu teg te dem ca paaya xale yi ñoom lu bon ñu jox ko paay ñu dem ca paaya paaya ne ah ñu ne mag lañ sonn nañ waaye bëgg gu ñoo noppalu bëgg nañ fee des ba ca kanam de yóbbu leen ko ci ñu feebar ña ko ci ñu feebar ñi ñu feebar ji ne ah ñun dañoo bëgg a wér delluwaat ca njaboot ga bëgg gu ñoo dee léegi de yóbbu leen ko ñu wér ñi nga xam ne coono bii ñu dal ci feebar ñoom mosuñu ko waaye buñ bëggee boole ñaari coono yi coono feebar ak coono dee day métti yàlla ne comme yéen ñëpp a ngi koy gengante nañ leen ko far séddale looloo waral dee léeg-léeg mu jàpp ci ndaw yi léegi léeg mu jàpp ci mag ñi léeg-léeg mu jàpp ci ñu feebar ñi léegi léeg mu jàpp ci ñu wér ñi ci ji jamono nag ndaw yi la gën a yab boo ci gën a bëri téeméeri nit ñoo dee téeméeri nit ñoo dégg ñu ne dee nañ boo jëlee juróom-ñaar ba juróom-ñett fukk yëpp ay ndaw lañ. 40 ans jëm suuf rek 50 ans jëm suuf mo ci gëna bari ci ci jamam kon nak képp ko xam da nga feebar ta yow ci sa bop ya nga yaakaaree dee ci feebar ha feebar bo xam ya nga ragal ne do ci ci mëna jutati na nga gëna rafetal sa jikko sa jikko yi moy mbooleem xeet yu bon yu neexoon ci sa xol jëm ko raxas raxas ko ba mu set wecc ci soxor rëy bëgg daraja bëgg àdduna bëgg xalal yooya na nga ci raxas sa xol bi ba mu set wecc bala ngaa dee li ñuy tuddee mujj gu ñaaw ak li ko nit ñi firee du benn mujj gu ñaaw du deeyin wu ñaaw deeyin wu ñaaw ak mujj gu ñaaw duñ benn nit ki mën naa deeyin deeyin wu rafet fekk dafa xam mujj gu ñaaw nit ki mën naa dee deeyin wu ñaaw fekk xam na mujj gu rafet waaye ñun ki ñuy jàpp ne moo xam mujj gu ñaaw mooy ku dee dee gu ñaaw bàyyee ko ca R plus 20 wala wala 5 wala 10 daanoo ca boobu ba toj wala ngay jéggi tali camion wala oto ramassé la ba ñuy for yaram wi sa suux yi wala ku lab ci am ndox walla ku safara lakk wala ku gaas sofe ci kawam. wala ku kër wala néeg màbbu ci kawam walla koo xam dafa def as mujj ñu koy génnee ca biir oto ba di ko di ko di ko génnee pari cër loola deexin wu ñaaw la waaye duhut mujj gu ñaaw dee googu ma wax la li muy ñaaw ñaawul lu ko gën a ñaaw saxaaba yi dee nañ ko am na ci saxaaba yoo xam ne seen cër yi lañ doon dagg par cër ku mel ni jaafar dagg nañ loxoom nday jooram dagg loxob chamoyam dag ay tànkam lépp mu jare ci parcir bo dooru a génn àdduna xoolal xamsatu dañ ko ray yemuñu ci ku bon wax siw dag ko manam butti ko jakarlo ak xol di dag ay cëram lola xam ngeen ne lu ñaaw la way de ñu ñaaw la way du gu ñaaw mu gu ñaaw moy di de fepp sa xol bi lu dul ngi ci aju loolu moy mujj ñaaw yan ci yalla musal ba ngay de sa xol ba ngi aju ci halal sa xol baa ngi xaju ci mbooloo sa xol baa ngi xaju ci daraja sa xol baa ngi xaju ci bëgge sa xol baa ngi xaju ci soxor sa xol baa ngi xaju ci nay nit ki daal bu ñuy nocci rooxoom fekk xol baa ngi xaju ci lu dugul yàlla rek kooka xam na mujj gu ñaaw waaye noo mën a deexee lu dee deega ñaaw ñaaw comme bi ngay dee sa xol bi lépp nga xaju ci yàlla ku la gën a rafet mujj gu ñaaw ku la gën a ko am mujj gu rafet amul ci kaw suuf yàlla nañu yàlla may muj gu rafet loolu la ñuy tuddee mujj gu rafet kon nag li ëpp ci xolof yi xàmmee wuñ deehin wu ñaaw ak mujj gu ñaaw xàmmee wuñ deehin wu rafet ak muj gu ñaaw ah, ak mujj gu rafet yooyu yëpp boo ko xàmmee wut mën ngaa jaal jaawale lu bokkut duñ benn deehin dana ñaaw fekk mujj mujj rafet deehin dana rafet fekk mujj ñaaw mbir mi nekkut foofa kon nag fi ñu yaakaaree dee te mooy feebar. amna ci yenn feebar yoo xam ne bu la dalee dootoo xamati sa bopp yaakaar da nga mel ni góor ak sisi sisi ga jaan ja màttoon màtt ko ci bopp bi haa mu jékki-jékki rek jëndi sàngaa ya laxasoo ko romb soxna yaag doom yaag mbokk ya yuuxu foo jëm ne ci armel ya de fa ngeen may suulee ngeen may fekkee de kenn du ma yóbbu ci armel lan la mbaa jàmm mu ne ah ku jaan mat lañuy ñëkkal li jënti ndax dana wàccam du wàcc mooy ndax mbaa yeegut ba ca bopp ba bu yéegee ca bopp ñu xam ne day dee man nag jaan ji far matt ma ci bopp kenn dutul laaj ceeti yéeg naam yeegut xam ngeen ne damay dee kon nag fekk leen ma ca armeel ya kon tamit léeg-léeg ñi ki dana feebar feebar boo xam ne ñaareel dafay foog ne bakkanam da cay des kon su boobaa na raxas xolam xeeti jàngoro yooyu tuddal la yëpp na sori bu mu waxati ci làmmiñam wii li des ki du dandu dul xiiw nay jàng istixfaar nay jàng salaatu ala nabi bu man nay tudd laa ilaha illa allaahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp na ci sax rek bu mu jëfati ci cëram yi lim dese ci jëf lu dul xiiw waaye bu mu jëfati lu cëram lu dul xiiw nay rafetal gën a yokk rafetal bu fekkee borom soxna la woon mu rafetal jëmee ca moom xoo bam ñew ne ko ñaar bu ñu àndee di dencante man ta ñak lu sew la baal ma sama hak su fekke jigen la won na dem ci jëkëram ba bu jëkëram ñewé set ci ku mun ko baal ma xàq nijaay baalu àq ay doomam baalu àq ay dëkkandooram baalu àq ay baalu àq ay bu dee mu baalu àq ay doomam yile yëpp lañ bëgg nga wajé ko su ko defé timit mbolém ñi nga xamé loolu hak na len ko jema delo ko xamé xamee doon xaq kad mu xaq kaddu xoolu wala nga setlu ko wala nga yone fa dem fa ne ko dem len ko ma de ci lamat li doxon sama digganteeg mom, bu dee ay kaddu yu kaddu jërul mu ko koy leralal bu fa nek nan ko dama la jëwoon dama la xason dama la rabba xeytu bi yalla ko mooñaaleeg sutura dafa wute yeneen xeet ya won ko mo sa amel xaq bala la man a sañ a koy wax ning ko toñé won ñun nak togn go togn nit muy walu kaddu yoy nga xam du halal boko ko ci sa xol rek baalu ko àq bu lako ko rek mu dugalé ca waye bu doñu jitu ñu nak dang koy wax ne ko baal ma ak dama la jëw wala dama la naral wala dama la dama la dama la sa der ak nangam ak nangam ak nangam mais ñun xeet sutu la su fekke ja alalla bu mu fa ak baal ma ak nako ko jema sama digganteek yow ñaari junne doxoon na ci mi ngi te nga baal ma àq ni mu tardé ñaari million doxoon na ci mi ngi ñaar fukki million doxoon na ci wóorutoon wala magasin wala terrain wala suuf ko nag maa ngi la koy jéem a delloo te suñ diggante rafetoo baal ma àq mu jeex su ko defee nag mu ko ak baal ak ak njéggal gannaaw bi mu gàccaloo xàq yi ci diggante moom ak moromam yi ci wàllu pas-pas ci wàllu wax ci wàllu alal mu delloo nag di kan nag kenn laa di set problème te ki ma di set problème ku baax la moo tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim maa ngi sàkku ci moom njëggal yow yàlla yàlla nga ma jéggal sa yërmande gi moo ëpp sama mbon gi sa mbaax gi moo ëpp sama caay-caay gi sa euh, sa euh, maanaam sa yërmande gi moo moo jiitu sa mer mi kon yow yàlla yàlla boo ma toppee sama bon gi boo ma toppee sama manki gi yàlla nga ma xool sa bëtab yërmande bu yaatu bi nga xam ne koo ko xool léppam baax yi nga tuub ko mu wér ki sa digganteeg sa borom ànd ak ko nga góorgóorlu di saraxe ci sa halal halal ji nga fa desee bul jël lépp di ko saraxe di bàyyi sa doomi ñi ñu nekk ay fuqaraaw ki masakin jël ca dara boo feebaree ba hóolutoo sa bopp sa alal nu mën a toll ñetteelu xaaj ba yaa ko moom boo dee ñetti million nga fi amoon yaa moom benn million ba sharia may na la ko lum ca jublu nga jangee ko sa jëf yu damm yi man ci man ko yokke sa hiw wi su boba nak comme ñetti million nga am ci sa lepp jëlal ben million ba nga seen ñu neew doole nga dimbalé leen ko ñu hajoo sax bu la nexé li nga yobbu ko ci juma yu ñuy tabax gut jëlal li nga yobbu ci daara alquran ju ñuy jangé jëlal li nga togg ay ñam jox ko ay nit ñi lek jëlal li nga seet borom kër yu dépense nga jox leen ko loolu nu la gëna jëgé ci say mbokk mu gëna baax dañ lay bindal ñaari yool yoolat joxe gi nga joxe dimbal ga ak yoolab ki nga ko jox muy sa mbokk kon dimbal loolu ma wax la yëpp bu jëmee ci sa mbokk gën a baaxati ñaari yoon nga cay am boo gannaaw si comme yaa ngi dem xamoo nooy demee xóolutoo sa bopp dénkaane ba ngay man a wax nit ñu bëri nanguwuñ testament dañoo foo ne test ku testament ku ko def dee déedéet nit di rek di ki def na testament bind li mu bëgg ñu doxal gannaawum dinaat fi ñeent fukki at def na ko dund fi téye fanweeri at ak nangam kon nak def testament taxuta de ñaku ko def terewuta de kon nak dalen def testament yi de nit day leral gannaawam waye bayyi sa gannaaw ñu ne lu wax ñu ne waxu dara mom tay dara dara dara fu ko defé bayyi fi lej lej go xamne kenn mënu ko lijeenti yorel carnet bu leer sa doomi xam ko kula xamel nga bidd ko xamel nga bidd ko ko jëflante nga bind kula jëflante nga bidd defal testament nga bind wala na suma dee bëgg naa nañ ma denc place sangam diw bëgg naa suma génn na ma jullee bëgg naa diw ak diw nañ ma sang bëgg naa sama njaboot yi nañ leen orienté ci jàngam alquran ñii nañ dem defi nangam ak nangam yooyu yëpp testament da ko war a def la nga mën a wax wax ko la nga mënta wax maanaam nga bindul ko nga dénk sa njaboot yi ne leen maa ngi leen dénk ragal yàlla maay seen papa maa ngi dem sama bopp yéen soxna yi na ngeen defee seen tënj ci kër gi yéen si sama doom yu góor na ngeen leen toppatoo su paree nag ku ci bëgg a xewee mën ngaa dem waaye na ngeen teel a sama halal ji kenn ku ne lii xaqam na jël Mang ngi leen di denk yalla na ngeen bahi lepp luy lu bon na ngeen ko bayta ngeen na ngeen beugante na ngeen sopante na ngeen ando nek ben mo leen may dole ni arab yu ba defoon bam ni may bay bay beug a aduna denk dom ya dafa leen a pësin dafa leen a woo li ko mune ci taw ba ci nukune ñepp nek ay ponkal mu ne dem leen ngeen taxanal ma kenn ku ne ben mat bu kenn passé ben mat ñi taxan andi mu ne kenn ku nek na bo bosam ñi dam mu ne dem leen ngeen taxanewaat ñu taxanewaat andi mu ne kii boole leen seen boobu seen matt yi ñi boole ko mu ne taaw bi takkal ñu takk ba mu dëgër mu ne damal mu nekk ca di las lasi ba bëgg a dee mënu ca dara ki tegu ci yow damal mënu ca dara ba ca caat ma mu ne mu ngoog àdduna ngoog maa ngi dem su ngeen teqalikoo danañ leen damate ni ngeen demee matt yi su ngeen a àndee nekk benn bolok ku leen di mënal dara ci kaw suuf nekkut fi kon nag li yep nga koy denk sa dom ta wara jitu nga jital ko la wara def yep nga def ko bala nga genn aduna loolu lepp dafa am solo mag ñi lañ dan denkane de mama la jeb la nga fi mu defee testament am bi ak fim genn aduna fukki hat ba ci fukki hat li ben bala ci la jël ho mam khalifa ne ko limay denkane ñent la nang ma denc sama zawiye bi suma genn aduna ñaareel bi nang ma jullee bu ma jox kenn mu may jullee ñetteel bi nang ci jàng ñaan ak abi rayra raga yaag sara yi na ngeen ma wàccee kaamil def naa la ngay xali ngay sama xalifa def naa la ngay xalifa ab Seexu Tijaan bind ko yónnee ko Sukayru ju Sukayru ju ne ko d'accord nañ ci ak yow xemuñ ci sax def ko muy sa xalifa man mi di sukkeeru gi sax mam khalifa mi moy sama khalifa ta moy khalifa Cheikh Ahmed Tidiane fi ko mam aladi bindi ak fim mu aduna fukki at la bay duggu ci fukki at mak ben muy door a wuy di boromam moo tax ñeenti dénkaaneem ya matal nako kon de len def testament da leen leeral rawatina yéen commerçant yi yu ci bëree bëri hal li jambu rek lañu ñu lepp ci banque yi def ay prêt bu prêt ba pare rek nga pare nga defaat prêt wat xaw ma kañ su ko defee nag ci loolu ngay nekkoon leeralalal magasin yi nga moom leeralalal surga ya fay liggéeyee leeralalal fi nga jëlee xaalis bi leeralalal yéen borom entreprise yi dee leen leeral yéen ministère yi dee leen leeral yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yàlla jiital leen leeral leen dee dafay bette fu ñu ko foogeewu dong lay ñëw alquran nee na du leen ñëwal lu dul ci betteel waaye def naa li ma doon def pare naa dee lay xaar kenn mësu koo dégg moom kay ci betteel rek kuñ tàggee rek nga téye sa gémma loolu nu mën a amee kese ngay ngay dégg kon nag nañuy leeral su ko defee nga dénk jaboot gi nañ bennoo bañ a bennoo su ko defee nga dénk leen saxalal ji ngay liggéeyee nga leeralal leen ko boo te nga fexe bañ miin ko waaye léegi li gën a bari boroom kër a fi nekk góor góorlu lool ñëpp dégg ko ci mbaax dégg ko ci nangoo liggéey ak mën a liggéey su génnee àdduna rek alal jël lépp ak liggéey ba naxasaay yàqu li koy waral mooy yore sa sa alal ji di ca liggéey fexe mu miin la waaye ba mu la miinee miinut sa njaboot gi alal nag bu la ci kenn nax moom juri kër yi ñooy am juri kër bu la miinee rek daw ñëw riisu la nga raay ko mu tëdd sa kanam mu dem nemm xalal tamit mu la mel bu tegee ci loxol ku ko xam ne miin na xalal ji xalal ji miin ko rek xalal jóge day gën a yokk day gën a sekki dafay gën a yàgg gën a xam mucc waaye bu dee xasee xam xalal ji ñëw tegu ci sa loxo yi ay millions yow miinoo ko mun miinul la xalal ji dafa lay wan gannaaw dem kenn mënu ci dara kon nag patron yi kilifa yi dee leen miinal seen xalal yi seen njaboot balaa dee xam ndax su boobaa fu ngeen mën a xem rek ñoom ñu mën faa continuer waaye boo jëlee xalal ji miinal ko sa bopp yaay tëdd yaay tëj yaay yore say magasin yaay yore compte ya sa doom ya xamuñ ca dara ba nga deexee eh, lañ cay doora xam dara su boba bu xal gi tegeu gi seen loxo rek yaqku lolu mom yaakar na ni neex na jangale fi ci senegal ci milliardaire yi fi dee yu bari seen fu rek la mujj lu ko waral xalal ya minu dom ya njabot ga bam tassaro rek mu tassaro kon nak li ci tegu moy gannaaw dénkaane nga nak nang leen ti tamit ne damay dee way yeen da ngeen ni dee la yàlla waxoon yonent bi laa leen wax innaka maytun wa innahum kon kenn munu ci da suma genn nak bëgguma sama dëj ba ñeen fi nekk di ray ay nag ak di fuukarewu bëgguma ko fa bëgguma ngeen ma fi defal ay sarax yu rëy nit ñay dajee loo bañ dénkaane ko bu ma dee ngeen di yuuxu di pes seeni lex yi xotti seen yëri ak di wax wax yu ñaaw di déjjatu di xotti ay rido toj ay kaas te loola lépp ak manqué te dañ soxlaat da naan ak dal deekat sama wàll laa jël waaye seen wàll gi ñëw na ngeen ca bàyyi xel su ko defee nag nga dénk nga sa gannaaw ba mu jeex ba su defé nga ni ma bëgg nak ñan ko léma té loolu mag ñi bëggoon lama ma gënoon bëgg ci lekk dal xam ngeen ni plan nangam lu ma bëggoon la amna ño ñoo seen plan moy ñaari ci mëno ci dara amna ci ño xam ciëb lañ bëgg amna ci ño xam ne rek lañ bëgg amna ci ño xam soow rek lañ bëgg nga ne leen nak mboolem tayti lekk yi nangam la ci gënoon bëgg xam ngeen ci dara su ma génnee àdduna bañu suul ma ñetti fan na ngeen makoy saraxal man ngeen makoy saraxal waxtu lek wu rek ngeen seddu sun teddu nit ngeen jox ko ko su boobaa ñu bu leen neexee mën dem ci restaurant ba rek fay lu man ñetti fan ku ñew nak di ñu ne day day ki nga nga yëkëti ko jox ko jox ko jox ko kenn lu fay lu kan mën naa suur tëdd nit bu leen neexee man nga ko def heure bi jant bi bala jant be sox nga seet lu lu lu suur kenn nit jox ko bala jant be fenk tamit nga def ko nona ba man ñetti fan ya lolu tamit baax na lool dana dimbalé ku genn génn ma ci biir bamélam mag ñi dañ ko daan def mama la jëb la ñi taf ko daan santane su ko defee kon mu rafet njortu ci ki muy dajeeg ne li may bon bon tey ma dajeeg ku baax ki li may mën a tooñ tooñ tey ma dajeeg ku mën a jéggale ki su ko defee rafet njortu ca loola danaaw dénkaane yi nag lii bind na ko lii wax nag ko ah nañ seet ñu tedd ñu sell ca mbokk ya ñu ko tiim jege ko di wax laa ilaha illa allaahu muhammadu rasulullahi waaye buñ ko wax waxal de comme abdulila kenn du ko wax waxal waaye ñoom dañuy wax loola rek bëgg moom tamit mu wax ko bu ko waxee baat boobu bu mujjee ci làmmeñam rek bu dee dem aljana su ko defee nag su fekkee ab yéeféer la nag mu dem bay bëgg a sañ ngaa ñëw nga ne ko waxal laa ilaha illallah moom la yonent bi defoon benn xale bi yahóor moo ko daan indil ndox mu muy jàppee lu ci bari ci ay bëgg-bëgg moo ko daan defal waaye ab yahóor la yonent ko yaatu dënd la ba mu ba feebar yonent bi dem di ko seeti ba mu ñëwee fekk ko muy bëgg dee mu ne ko waxal laa ilaha illallah waxal la ko yonent bi wax mu xool baayam xool yonantu bi yonantu bi waxaat ko ne ko waxal mu xool baayam xool yonantu bi baayam ne ko toppal Abaa Qaasim mooy toppal yonantu bi ci la xale ba door a wax ne laa ilaha illallah mu bugg naa ba mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullahi yonentu bi génn daal di wax ne alhamdulillahi alladi axrajahu biya min annaar maa ngi sant yàlla mi nga xam ne génne na xale bi ci safara ci sama sabab ndax tey bu wootoon baat bi ba dee rek kenn mënu koo teree dem safara kon nag bu dee ab xéeféer la nga koy seeti fekk muy bëgg a dee wax ko ne ko waxal waaye bu fekkee abduli la yow waxal rek waaye bu ko wax waxal ndax mën nga koo wax waxal mu tombeek seytaane mi ngi koy xoy ci ay biron yi ndox wala ay kaas di ko nan naan ko weddil yàlla ma jox la nga naan ndax boobaa benn noy guy euh, dëpp waaye xamatul retour na noy guy dem rek la am boo ko joxoon ndaali sax mën na koo naan dafay soxla ndox di mar su ko defee bu ko waxee déedéet fekk nga foo ne yow la wax déedéet sa njortu ñaaw ci moom te looloo baaxul moo yow waxal te bu ko wax waxal moom la bi sallallahu ne laqinu mawtakum sallallahu mu ne saleen yi la ilaha illallah, kon nag alqim googu muy sag yi lu am solo la nañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ko wax ibnu Abbas moo génnee hadis bi yonent bi ne laqinu mawtaakum shahadata an laa illa allahu fa man qaalaha inda mawtihi wajabat lahul janna mu ne képp kuñ sa baatu seede bi muy laa illa allah wala kenn sahul la ko waaye yaa ko wax mu mujj ci sa baat bi le boo dee rek dem aljana ba mu ko waxee nag am saxaabi yu wax yonent bi ne ko ay saxaaba ne ko fa man qaalaha fi sihati na ku ko wax fekk da ngaa wér feebaruloo defuloo dara nga ne laay laay la laa yoon tamit na ko a tilta kay ah, ah, aw jëm loolu kay moo gën a warati fafa kay la gën a baaxeeti ba ngay wér di ko wax kay mooy gën a baax te ñaareel ku wér di ko wax taamu ko rek buy dee man koo wax waaye ba ngay wér comme doo tudd baatam laay laay la boo dee tamit boo nee bay feebar tamit doo ko mën a waxati dafa lay tëre de yonent bi keroog la wax ne wallazi nafsi bi yadihi law jia bis fa wadana fi kiifatil misaan wa wudiat shahadatu an laa ilaha illallah fi kiifatil uxra la rajahat bihinna yonentu bi ne maa ngi gën ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxom kartanam juróom-ñaari asamaan yëpp ak juróom-ñaari suuf yi ña nekk ci seen biir la fa ne ak la nekk ci ronam bu ñu ko tegoon ci benn baskil jël baatab laa ilaha illallah tes ko teg ko ci benn baskil laa ilaha illallah daan ko kon baatab laa ilaha illallah muhammadu na doole lool ku amati ab néew yaakaaruloo na nga dend ak mom di wax baatab la ilaha illallah bu ko xelam dajee mu wax ko mu dee demal jana waye nak bu ko wax waxal bu fekke ab la nak da koy seeti fekk mu fe wax ko ne ko waxal la ilaha illallah bu febaré nak diko seti bul fa yag waye nit ki febar sonu bay bëgg a nga nek fa di wax lu ñu lu ñu rek lolu baxu ko rek ta bañ fa yag lu mu di yag di ñaanal ko lu mu di yag di nga sakku ci mom mu ñaanal la ndax ku febar lu mu ñaan di ab julit yalla daf koy tang ma ngi lay ñaan timit bo ñibbee teel sa lamagne bi bu fi nek naan dama hendu tay hal hôpital fan la demone ak hôpital dante la demone di wa febar mom lay setti waye mom dañ ko fekke sonn ma de su ko defé nga wax lola am nonam dégg ko loolu mun koo ñàkk daal ko dafa soxoron dafa def nangam loola baaxut dafay mabbu sa xiw nga defé won bay mabbal sa xiw yi jiitu woon ndax bat kat rek mëna yobni safara yalla na wala bi ma kon baat ci li nga wax ak yalla rëbbul ci nit kon yoy dafa jara daw ben baat ni dana ko fanal lu la fekk man ko koo ñeen fukki noor wala ñeen fukki loolu ci safara lolu yoonu wax sallallahu alaihi wasallam kon nak seti ko tax bo ñu teel sa wile nit dana febar, nga dem di seti ñew di netali fekk ya koy njëkk a dee nit neena ñaaw ñaaw làmmeñ ba ne man kay sama portable bi sa yu sone dama fa mom moom lañ may tàggee man naa am yow la ñu njëkk a tàggee de bay leen wax joju baaxut rafetut yelut sellu maandu leen tay rafetal kaddu yi lu xama xam solo la kaddu gu baax Eh, yonentou bi alquran dafa dafa melni ni garab bu tede de moy mooy mën naa créer environnement bu neex ci am penc waye kaddu gu ñaaw mo garab goo xamul créer de fofu ben environnement nu fa nek tango rek a fay ni kenn du ca kerlu kon nak kaddu gu baax dafa am solo nañ koy baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax kaddu mo lay bolé ci diina le waye kaddu mo la ci génnee kaddu moy tay yëkëti sa maqama fu kawé kaddu moy tay ci wacce la tabarakallah ba nga gëna asfal kon nag kooku tamit bi bëgga dee gannaaw bi mu dénkaanee nga seeti ko nga jàllal bi ko tamit def na testament yaa ngi koy sabaatu seede bi jamono jooje muy dem tollu ci xarxarle xarle bëgg nañu jubale ko penku su ngeen mënee orienté euh, aji feebar ji mu tëddee wàllu nday jooram ngeen jël njaganaay teg ko ca bopp ba mu xaw a yëkkatiku jublu xibla lu baax a baax la yonent bi bi mu ñëwee madinatul munawara dafa laaj ko ñu tuddee albara baram nu maaruur ñu ne ko génn na àdduna dénkaane na ñetteelu xaaju alalam ba mu ne tamit dénkaane wal na ne nañ ko jubale penku bu demee ba bëgg a dee yonent bi ne asaabal fitrata ko dem moo jëfee suna piir ñetteelu xaaju alal bi ko dénk ñu ne ko yow la ko dénk ne yow la ko may yonent bi ne man delloowaat naa ko doomam yi nañ ko jël kenn du yonent bi duhul kilifa goo xam ne loo ko jox mu jël de ku fi bëgg yàgg doo jël du la jox nga jël de waaye xaye xeyow nga de nga lu ëpp loola yaa ko moom boo ko jëlu nañ jël ko rek nga lekk ko loolu baaxul am na ci yoo xam ne ku la ko jox delloo ko yonent bi ne qad raddatu sulasa maalihi ala waladihi bu ko defee nag demal boppam moom yonent bi moo dem boppam jullee ko ba mu koy jullee ba pare mu ne allahuma ixfir lahu warhamhu wa adxilhu jannataka xam nga kii xam na sens ne yow yàlla yàlla nga ko jéggal yàlla nga ko yërëm yàlla nga ko tabal sa aljaana ji yonentum la mu ñaanal ko lii ma nga aljaana kooku imam bayhaqi yu moo génne hadis bi ak hakim hadis la boo xam ne bu wér a wér a wér la mu bokk ci hadisu abi qataada daya abi qataada ta moo génne hadis bi bayhaqi yu solo ko kon bu demee bay bëgg a dee rek na ngeen ko jubalee penku tëddali ko wàllu ndeyjooram mooy mooy loxom ndeyjoor bi moom lay njegenaayoo su ko defee léegi jël bopp ba teg ko ca njegenaay la xarxaramam ba jàkkaarloo ak penku bu fekkee mënu ko na tëddee càmmooy waaye lu man a doon tamit bopp ba moom na jubalee ak penku su ko mënut xalaa kulli haal nañ ko tëddalee mu jaaxaan waaye bu fekkee ma ngay jaaxaan timit Euh, moom na bopp ba dubalee tabaarakallaahu ak maanaam ak penku waaye su boobaa bopp ba ngeen di jël teg ko ca ak njëgënaay mu kaw a yëkkatiku jublu penku kon daal nu mu mën a tëddee lay tëddee rek waaye na ngeen fexe bopp ba daal jublu penku su ko defee kon loolu nañ ko ci bàyyi xel lii mooy waajaay wi u mujj wi jublu na penku nag tudd ngeen baatu seede bi ma ngi koy wax tabaarakallaahu nekk na ca nekk na ca nekk na ca ba yàlla nocci na roxu ga waye njëkk muy nocci roxu gi bëgg nañ ngeen am lu ngeen ko jangal ndax bu ñu nocci roxu ga mo xoyaf so xamee ku man yasin nako jang ci bop ba ndax yasin dafa hëmb mbooleem tawhid muy wéetal yalla lambo nako mom moma sax taxaw na taxawayu baatab eh, ashadu an la ilaha illallah ci walu pas-pas kon naam ñu ñu nekk ci bop ba jangal ko yasin bo bo su boba man na ko yafal dega Ah, yonentu daana wax ne iqra'u suurata yaasin ala mawtaakum dee leen jàngal seeni néew yi le suuratu yaasin yonentu nee na yaasin qalbul qur'an laa yaqra'uhu laa rajulun yuridu taala wa daar al axira xufira lahu waqruha ala mawtaakum yonentu bi nee na yaasin mooy xolab alquran xamul kenn ku koy jàng di ko jublu yalla jëm yalla ja ak djublu ci àllaaxira lu ludul ba yalla djegal nako ay bakaram way way di leen jàngal yaasin seeni way new yi di bëgg a dee di ko jangal yasin way yasin gi timi man nañ ko jangal ku ba pare kon ñaari déggin yëpp amna ci ndax batam mautu ñaarel arab bu ko waxee rek ku ba pare la koy gën di wax kon nak ku dee ba pare man nañ yasin, jangal yasin motax bunyi suñ mag ni bu ñuy suul néew ñu ne ku jikko mokal yasin demal nga jang ko ci bop ba ki man suratul mulk na dem jàng ko ca tank ya yooyu yep baxna lol dara nekut ci imam ahmad dagana na ngi jangalam new alquran imam safi yu na dagana dara nekut ci kon lolou ma wax la muy hadis bobu day miyu moko ko ci fir téere bu tudé tuddee musnadu firdawsi abi darda mo mo manam day miyu moko solo abi darda genné ko ci yonentou abi abu al ghafari yonentou bi ne ma min mayitin tuqra'u indahu yaasiin illaa hawwana allahu alayhi mu ne xamul benn néew buy bëgg a dee ñi jàngal ko yaasiin lu dul ba jàng yaasiin nga dana xoyofal jàppandal dee xam nga kon nag ñi nekk ci hôpitaux yi ñu yaakaar ci ñoom ak dee wala koo xamee ne ku ko gis xam ne kii mu ngi ci waajaay wi bëgg a dem jubale leen ko penku tabaaraka laaw tëddale ko ndeyjoor bu mënul càmmooy ba mënul jaaxaanaay waye na bobu feto cham ke ke penku su ko defee ngeen di tudd baatu bi la ilaha illallah ku mokal yasin ca dom ya wala ca njabot ga nako jang ca bop ba dana waral sukkuraat sa hoyof lol léegi nak bu demee ba tollu fofu timit jigen gu yore reegal wala mu yore gësin bu mu ko jege ndax ñoña dañu bëgg dañuy daw malaakam yërmande dafa leni daw ta dañuy bañ moom mi malaakam yërmande jege ko su ko defee nag kon jigéen bu yore régal daal na ko sori su ko defee tamit nag jigéen bu yore gësin tamit na ko sori warta bokk ca ñay toppatoo mbiram kii nga xam ne mi ngi bëgg a génn aduna su ko defee tamit nañ koy loo ci yiw di jàng aaya ju mel ni alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور رحيم آية لا من كسرة سورة جاء تبارك الله فنوير إلى آية جاء بجاء فنوير النار فوفلا نك كون نك آية nag aaya jooju li muy tekki rek mooy nit ki bu demee bay bëgg a xam gannaaw bi ñu ragalee dee lañ gën a ragal mooy seen njaboot gu sew gi ñu bàyyi gannaaw man de dee gi sax amut problème waaye sama njaboot gii seen njàng mi matagut du ci wàllu daara du ci wàllu école sama yar ci ñoom matagut ni ma leen bëggoon a taxawee matagut te ji jamono nit ñi seen doom ya sax xalatuñ leen waxuma la doomi jàmbur waaye waaye sama doom yi ko leen toppatoo doo ko waxee nag yàlla jàngal la aaye jile ne la ñi nga xam ne dañoo ragaloon yàlla ba dee ca fu ñu toll ñi ngay wax ne yàllaay suñ borom xemuñ ca ñu jub kocc ci def santaane yàlla yi baxi tere yi suñ demee bay bëgg a dee yàllaay wàccee malaaka muy wax ak ñoom lii ne waay waay bu leen jàq bu leen tiit jàmm rek ngeen di fekk bu leen jàq bu leen tiit ci li ngeen baxi gannaaw yàlla teg na ca loxo loolu lañ leen di jàngal ne ah, ñu ñu door a génn àdduna yàlla ñu ko yàlla defal te loolu lu xam solo la lii neex naa gëm motax mbollem ko fi gis mu sonu ci diine kilifa ak diine go fi gis wala nitu diine kofigis, fi gis ku diine ñor nga daan liggey ci diine ak no ci mën a foko fekk bu génnee aduna njabot gim bahi won gannaaw paré pareegutoon ci ñom ci seenam paré pareegutoon ci ñom ci sampal leen kër pareegutoon ci ñom ci taxawulen ñoña ñoy hepp ñi nga xam ne pare woon na ci ñoom ba pare ndax lee ab liggéeyam la lii mu wane gannaaw liggéeyam yàlla la liggéeyam yàlla ak liggéeyam nit mënuñoo xem waaye nag ña jiitu woon te mu pare woon ci ñoom ñooy xëpp barke. ah moo tax kon foog ñu associé ñee nañ jël seen wërsëg wa di ko jox seen taawu bàyyi ndax seen taawu bàyyi tamit jël barke ba jëlee seen baay jox leen ko boo boolee wërsëg ak ah, barke man tamit ma boole sa wërsëg weesu barke bi jàmm na ñooy loolu mooy mën a dem. waaye nag bu yàlla dogalee nga bokk ca doom yu mujj ya xëpp wërsëg loola jay la ak yàqkat yi tamit jay la ba nga xeeb ñi nga xam ne ñooy say mag noonoo leen su boobaa tamit euh, yàqule gu rëy mooy këpp ki sa kaw te kenn du jaman dara kenn du ko mën a fanq ki la gën a yàgg ak sa baay yàgg koo liggéeyal loo ko liggéeyalut xam ngërmandeem koo xam ne xamoo ko ci moom su boobaa dangay fexe nga jox ko ci sa wërsëg moom tamit dab mu mu mu dabaatal la ci barkeem bi mu jëlee ci sa baay su ko defee yow tamit nga nga nga dimbale ko ci sa barke bi moom tamit mu dimbale ci wërsëgam loolu rekk la moo tax kon ñii yàllaa leen méngoo moo waral dana leen jox war wërsëg bañ seen xol seen bañ bañ doyal ñeen nit seen bàyyi ñoo leen méngoo woon te yàgg nañ leen a ñaqal yàgg leen a sonal xam barke ba mu doy ñaari rek la barke nag mooy loo xam ne du jëmm waaye nag jëmm jum ne rek ñu xam ko place bu mu ne ñu xam ko fu ne ñu xam ko barke loo xam am solo la. ku ko ñàkk ñàkk nga lépp ak loo bëri bëri wërsëg wërsëg bu bëree te borom amul barke amul solo barke bu borom amul wërsëg tamit nag tamit amul solo waaye boo boolee ñaar yëpp rek mu gën a baaxati moo tax kon aaye ji malaakay jàngal la moo leen may loola kon nag kuy dem bay gën a àdduna bu sa yoon nekkat njaboot bu sew gi yow fexeel ba baax rek su boobaa sa njaboot bu sew googu yàllaay méngoo seeni mbir Nurau raw ni nga mengo hon jabor gu mag gi nga xamne ne nga ne pare won nga ci ñoom kon nak lolu lo am solo la malaaka yi duñ ci yam dañu ko ne dila ya jangal ne yaa ayatuha nafsul mutmainna turjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadxuli jannati way way yow bakkan bi nga xamé da nga dalon ci top Yalla, ludulul Yalla munul la yeungal do ci yeungu tay nga delu ci sa borom de nga gërëm lépp lu mu dogal ci yow moom tamit mu gërëm lépp loo mos a def yaa nekkoon kenn ci jaamam yi dellul kenn dellul nekk kenn ci jaamam yi comme nag bokk nga ci jaami yàlla rek yaay bokk ñuy dugg ci aljaana yàlla gi kon nag yàlla nañu ko yàlla dimbale ñu wax ñu ko buñ demee ba toll ci diirab di ah, diir ndax li ku ko dégg sa lépp baax na dee nag jarta ragal moo gën foofu ci ab jullit ndax yonentu dafa wax ne àdduna du dara du dul kaso ña waral ab jullit waaye aljana la ñeexal ab ab xéeféer moo tax loolu li muy tekki rek kaso ku ci ne dañ lay tënk tey kaso ga ku fa ne tënk nañ la ci place boo xam ne nekkatut ku la neex nga gis ko nekkatut fu la neex ngay dem nekkatut lu la neex ngay wax dañ laa tënk ci lépp yow nag boo xasee nekk ab fii ci àdduna tënk nañ la nekkatu la neex ngay def lu la neex ngay def lu neex ngay bax lu la neex ngay wax déere tënk nañ la ah comme nag dañ laa tënk fii nag boo dee rek ñu tinki la nag nga nekk ca xéewal goo xam ne loolu neex a ci loolu neex waxati ab xéeféer nag comme kenn tënkut ko fa mel ne ci xal jaana la ne mi ngi ci àdduna àdduna xal jaanaam lu ko neex wax lu ko neex def fu ko neex nelaw fu ko neex tëdd waaye bis bu dee nag door dugg kaso su ko defee nag kon ñu tënk ko foofa nag du fa génn ti ukk maam Xaadimu Rasuul daana ko firee firee mu mu neex a neex firi moo xam ne mu yéemee yéemee la firi moo xam ne firi nitu yàlla pire la mu ne ab jullit teraanga jum mën a xam ci àdduna rek mel na ni kaso la ci moom du neex mukk waaye ab ab ab xéeféer tamit teraanga jum xam fii rek ëpp na ci moom ndax jaana lay doon ci moom waaye bu xasee dee rek dellu ca kasoo ga kii tamit dellu ca jaanam ja kon nag fal mawtu xayrun lil mumini min al xayaat dee moo gën ci ab jullit piir ci ak dundam dund gi nax nax ak jafe-jafe rek moo ci ne moo tax nag boo xasee dee rek tënkee ko nga ci kaso jëm ci kër ak xéewal gi nga xam ne aljana la muy tekki xay jeex na yonent bi dafa daan wax ne ñaar doomu aadama da koo bañ te ñaar yi mu moo gën ci moom ñu ne ko ban mu ne dee ñaareel ba ban mu ne néew xalal ñu ne ko nu mu gënee mu ne dee moo gën ci jullit waaye jullit daf koo da koo bañ ndax dee boo ko xasee def mucc nga ci fitna yi yëpp wax yi jokkalante yeeg wax yu bon yeeg nit ñu bon yeeg ñëpp boo xasee dee mucc nga ci waye mu ne tamit xalal ju néew gën ndax xaral ju néew mo gëna neex rek réglé ëllëg comme lo xam dañ la koy réglé ëllëg lu lu lu lu néew gëna neex rek le waye set ko jaay yi nga xamé dañu tukki won indi ay container ak ki nga xamé dafa tukki won ñom ñaar ñi bokk benn vol ki yore sa amé rek fay ñew rek jall police yi ñi xol ko rek mu dem jeexna waye ke da fay continuer mu ngay dem port ma ngay dem port formalité ya douanier ya ñi koy set ba xam teguna ci yoon man na ca nek werr bala bagage ya genn ñen ñu dañu xam ñaari weer ci door fay de douane ma ñen ñu mënañ ca joxe ñak seen bagage bu ci lu ñu tere nekkee mën nañ caa sens leen ñu ñak seen alal kon nak non la qira mel borom halal yu bari yëpp ni bari lee halal ñi neew halal dañ dugg hal jana ñoom ñu nekk di régler ñi nekk di régler ba ci sulayman mi nga xam mu ëpp halal ci yonantu yi yonantu bi neena ñu ñun yi dañ dugg jana téwé juroomi téeméeri xat a sulayman door di ñëw ñu di door di ko régler kon tamit ku la fi ëpp responsabilité bu yowmal xiyaame mooy kii gën a naqaree réglé noonu tamit la la xiraamer rek nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon nag deexa ngoog jarta ragal ak lépp loo xam ne lu ci xaju la kon nag yonentu dafa daan wax ne isnataani yukrihuma ibnu aadama yukrihul mawta wal mawtu xayrun lil mumini min al fitnati wa yukrihu al maali wa qillatul maali aqalu lil xisaab xadis la bopp ala kulli haal imam ahmad moo ko génnee Abdullah ibnu Omar moo wax ne dégg na ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dee tuxfatul mu'min al mawtu mu ne kadoo jullit piir mooy dee dee daal boo nekkee jullit di def lu baax di wax lu baax bis boo demee ba dee bu ko firee dee dangay wax ne maa ngi dem jëli sama kado ba ndax ci ngay mën a jotee ci la nga liggéeyoo la ñu commencé la koo mën a fay kon nag dee du toroxtaane tabaarakallaahu tedd nga la xéewal la ñaal ki nga xam ne nii ab jullit la woon daan wax lu baax di def lu baax waye nak ku nexutoon ci lu bax da ko wax do ko def dee moom toroxtaane gu mak ak gatcha ak musiba gu reey reey la don ci yow yalna yalla musal mu ci ah boo ma toppee suba nak ki ñu doon topp nak génn na ku mëna don su ko defé nak am luñ sunnal ne dana bu dee ba pare wara lañ koy wara defal dana la ko wax bokku na ci comme dafa dee war nañ ko waccé lal bimu ta tëddoon comme dafa dee bëri ya day buqeeku war nañu delo wat beut ya comme dafa dé yahi ngam ya dafa hubbeeku ko melni kuy bébbali war nañ ko tëjaat yoy yëpp dana la ko wax wama topé suba ci waxtu wi insha allah rabbi wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh